Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ñi ngi lay sant di la gërëm Cheikh Ndiaga ci déplacement bu am solo bi mooy profito di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di wax ni man may Mamadou Moustapha Ndiaye euh, di ki nga xamé ni man damay def li nga xamé ni modi di dama jox do doa bu am am solo mu di topando lool di royaté ñi gën ma xam ci roy Mamadou Mohamed Ndiaye ak roy nar yi nga xamne ñom ñoy reporter football football euh, ñi ngi sante yalla bu baax baax comme nama ko waxe won rek comme lama waxon tfm lay waxat mu di jamono yi nga xamne ci daara ji <coughs> di sama dekk maam bu ñu naan nek fofu ci wetu pekes nama ko waxe won euh, ñu yobbu won ma fa ngir may jang alquran yalla dogal ni suma naan jere ngeen jef di lelek léeg bëgge bëggee euh, mbiskit wala njur wala weccet rek daal di ñëw rëbbi presel kenn mu ko defee ñu daan may jox njorni ak gerte ak xaalis léegi nag bi ma defee loolu ba noppi ma gis ni it Mamadou Mouhamed Ndiaye mii daal dëkk bi bëgg nañ ko bu baax a baax bi mu jógee ci daara ji it euh, ma ñëwaat fii nga xam ne moo di Touba commencé koo def ci diwaanu marché Ocass ñu commencé maa dugal ci Facebook bi bu ko defee ma ko am ay yeneen site internet yoo xam ne doon naa leen ko defal Touba. mu doon loo xam ne daal euh, gis naa ci sama bopp bu baax a baax donc loolu moo ma proposé ma dugg ci lii waaw Mamadou Mohamed Ndiaye maa ngi koy dégg par téléphone waaye euh, wax dëgg yàlla mosuma koo gis mhm. waaw jërëjëf laaj nga ma question bu am am solo ambition bi ma ci am daal mooy nit bu dee def dara am na ci yaakaar euh, donc yàlla dogal na ni jànguma bëri na liggéey yu bëri yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala mën loo ma ko donc lii may def daal sama sañoon ma am ci ñoo xam ne dañ may jàppale bu ko defé ma man ci tedd bu baax baax baax. wa lolit man nako ma wax ni euh, man nay def rebi de presse mën di reporter ay maxi parce que comme ni ko extadis waxé won kérok suñu ma dégtalee ay audio rek audio yoy suma ko diglo ba noppi euh, bu ma ko diglo rek dans une heure de temps rek man na ma ko japp ci sama xel bu ko defé ma man ko pratiquer parce que sama lepp même ba ci alcorane ji ma sax non la ko jangé waaw euh, radio yoyu comme bi ma defee émission bi TFM ba nopi ma ngi doon defat ay appel mais ñomit wax dëgg yalla togal xaar rek lañ ma doon wax ku ne xamna ni mbirum Sénégal da naka togal xaar dafay yaat lool. bari na ay borom xam-xam yo xamni da naka togal xaar tax ñu xaddi te togal xaar bu yagge xaddi man na fa am waaw donc ma ngi euh, demandé wa radio yoy ñu ñëw gën ma confirmer parce que bo ba légui ma ngi tok di xaar te it am na ci yenen radio yo xamni comme ñu ngi ma doon proposer am na ku ñaan leral leeral FM fële su Louga. mi ngi ma doon xaar am na ko ñaan Baol Média fële sa Touba donc ñii laa diglu ba tax na ñu ñooñu ma leen lu leer. waaw kon xanaa moom may leen benn revue de rek. jërë ngeen jeuf dañu koy door rek gaynde senegal yi jamono ji ñi wax ak yeen ginnaw bañu amé amee victoire bu reuy reuy japp ben équipe dóor ko li nga xamé ni modi di 4 euh, gaynde senegal yi nak am nañ victoire bu reuy reuy sen digënté Congo 2 à 0 am ko sen digënté ak Lusitanie 4 buts 1 ñi am nak gaynde senegal yi nak ñi gis ni dal kërok sa famuri jeju def na lom du max bu extraordinaire mom famuri jeju nak duggal na 3 buts ki nga xamni modi moo di mo joxé moo bi yi nga xamni mom famuri jeju da ko duggal yépp Krépin Diatta def na ci ñaari ñaari dari pas di paas ki nga xamne modi pap di ndjay mu dugal modi kat 4 bit yi nga xamne ne dal yi dugal nañu ko beneen gëstu dal modi xam-xam ni xey ñu xamal ni gone senegal gone ali cisse yi nit ñi taxawé ci qualification yi car masàllah gis nañ ni dal ñum ay jambar lañ gis nañ ci seen bop am nañ ci solo bu baaxa baaxa baax ñu bay sport bi ta doxantu fi nga xamne ne moo di ca diwaanu ku ne xam na ni gis nañ ni dal jamono ji ah, ciowal trafic ah, yaatu na fi ak ciowal ak ciowal lubalum khalis ak ciowal li nga xamne modi di serali bagage mu mel ni daal réewum Sénégal jamono ji ñuy wax ak yéen ci ay wax ak ñaxtu rek ci la ñuy mujjee président Macky Sall moom tontu wut kenn waxut kenn dara mi ngi di patt pattaaral ci mbir mi ca diwaanu marché Ocass moom bu ñu fa doxantoo ba léegi na mu mel rek lay gën di mel daanaka commerçant yi ay fan ca ginnaaw gerewoon nañ ngir taxi nga xam ne seeral nañ ko ñu gis ni daal Sénégal réew mu la moo xam ne dafa fees dell ak bor ñu gis ni dara ci xaalis daal li nga xam ne moo di proposition ay ci wàllum liggéey ndaw yi nga xam ne ay wurum dépense te duñu ko mën a am ñu doxantu ci wàllum sport ñu gis ni daal am na gaynde ay booy Sénégal yoo xam ne ñu ngi fii bëgg football waaye ñoom nag amuñu kenn ki nga xam ne dana leen mën a produit ba ñu wàlla dem ñu gis na wàllum senegal eh, ci diwaanu Sénégal ak li ko wër lépp sooxee rek ma jeexale ko ak benn actualité bu xoromoo xoromu moo di daal ca Tiwaawoon dañu koy dooree ni dañu fa jàpp ay ndaw yoo xam ne dañu doon rasu dem waaye yemuñu rek ci gàmmu waaw lii moom alhamdulilah la ñuy wax kon maa ngi woo ñi ñëw jàppale ma parce que comme ni ko stades euh, euh, waxee woon ni man bu ma dëkkoon ci dëkk tubaab yi jamono ji maa ngi liggéey waaw. waaw benn mag si français wala dama koy def arabe rek. شكرا جزيلا احمد سيدي في بينه الان ليفربول ومانشستر سيتي فعد في المقابل هاندرفيل في الكره في ليفربول لقارص مرمى هندرسون يفيد على الراديسون لقارص مرمى برازيلي وسافي على الاوريجي وسافي على اكيد عن المنتفي محمد صلاح ساديو ماني آه، فيرمينو وفابينو ازال في كره مانشستر سيتي قارس مرمى كلاوديو برافو وبرناردو سيلفا وكون اجويرو وهدف في ادسا برناردو سيلفا كون اجويرو فرناندينيو وفي في فرناندينيو كون اغويرو حبسه في اغويرو اغويرو في جابير قزوس جابير قزوس نعم لم تعدل في دبراين دبراين على كره في الاشياء على خطيب دبراين نعم دبراين ابتدع في سونسي خطيره لبسه بالقرص مرمى الردي سن في منطقه البرازيلي كره للاعلى في ليفربول عن الماني ماني عبد السبيل صلاح صلاح خرج من فابينيو فابينيو عدسة كرة في بينهم قاطرة من عدسة الكرة فابينيو جول جول جول يا سلام يا سلام الساكورة في صلاة وعمل فابينيو وفابينيو وماني وماني فابينيو جول هدف أول منتقب لفريق ليفربول أبتسم عن السي غنوغانا قلنا كان عدل جداد دبران دبران مع الكرة اجويرو اجويرو اللي يتعدل برناردو سيلفا خرجت عليه حمزة امسي المنير يسعى على الكرة جمس منير لفريق ليفربول صلاة جول يا سلام جميلة مع عبد وصي علي الصلاة خطيرة لمنتخب الإيجيبتو ينسفع على السرلين لا الكرة في سرلين على الجنوجان على دبراين دبراين على الكرة في عدل السرلين خطيرة لي فرناندينو ركنيا امس ركنيا لفرقة مانشستر سيتي هذا في الكرة في ركنيا لفرناندينو كرة على دبراين على في صلاة صلاة لمن منور من عدل الكرة في الماني ماني ماني جول لي ثلاثة ثلاثة صفر لفريق ليفربول ماني للسنغالي ما صادل برناندو يسير على الكرة في قتل من على فرناندينيو فرناندينيو على دروان دبران على الكرة امسي للسرين وبرناندو سيلفا جول جزاكم الله والى اللقاء waaw comme ni ko Stades waxee woon rek euh, donc lii yàgg naa ko def depuis 2009 2013 ba léegi maa ngi koy def kon donc loo xam ne dama cee tàggat sama bopp la euh, nit ki nag lu mu tàggat boppam rek euh, incha allahu rabi loolu day ñëw. waaw xanaa ma def benn missage message bi may def mooy nit ñi nañuy jàppalante te yàlla rek tax te sax ci njub te topp alquran ak sunna si yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tey waxante dëgg saa su nekk. Euh, ñi génn asaka ci anam yi ñu ko amee te fonk julli juróom loolu it maa ngi koy joxe message woo fonk weeru koor te bañ a sàgganee suñu diine suñu diine ñu ban ko di sàggane bu baax a baax a baax ndax diine ji kat diine yu yàlla gërëm la diine yu yàlla nangu la xinda diine xinda la islam jëpp diine joo mën a dem ju dul islam rek duñ ko reconnaître kon donc loolu mooy message bi nga xam ne daal moom laa joxe ñu am fulla bu baax ci li ñuy def am yitte lu mu nekk te amu ci fulla amu ci du ko gaaw am donc ñu am yitté bu baax ak fulla mandi luñu man di nek rek ñu am ci yitté ak fulla bu baax te fas jom te lu ci borom bi subhanahu wa ta'ala waaw ma ngi tagoto ni sama gaa ñi nañuy toog di xaar sit bi int sit bu am solo bi, may wax ni buñu ko duggalé youtube rek buñu gisé rek ni nañ sétan ba paré ku ko seetaan nay joxé ndax euh, biñ ko duggalé tfm ñi sétan seetaan bëri na bi dama bëgg bu mana mëna bëri parce que bi mo solo kon sama fan si nek Touba Dakar kess Ndar France États-Unis Uruguay fep ci aduna bi nak fep fo dem nit ñang may may ma sha allah Arabie Saoudite yëpp ma ngi ni jox ni dama bëgg ngeen fonku site bi ni xañu xam ni sama chaîne YouTube bis na ko tey ki la di jallali xibaari ki la di jàllale reportage maxi euh kon ku ko bëgg xaar na contacter ak site bi.